ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg FTN Média ngërëm lu amul àpp dalee nag jàmm ci décryptage bu ngeen déggee décryptage xam ne dañuy faram-fàccee tey ñu war a faram-fàccee assemblée nationale mi ñu bari njort ne njiitu réew mi mën na koo tas tey jii fukki fan ak ñaar weeru septembre ndax tey la assemblée nationale am ñaari at te xam ngeen ne constitution bi may na ko moom président de la république bu assemblée nationale amee ñaari at mu mun koo tas tëgg yeneen élection am majorité loolu ñuy faral di gis njiitu réew yi bees yi di ko def waaye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxagul lu APR ñu ngi njortu ne dana ko bi mu programmé ëllëg 13 septembre di fukki fan ak ñett weeru septembre njiitu jëwriñ yi premier ministre Ousmane a la ñu bëgg a jëme mi waaye tas googa nag ñu bëri ci ay farandoom bëgg nañu mu def ko ndax nee nañu assemblée bi méngootul ak li askan bi bëgg rax ci dolli nag député yi Benno Bokk Yaakaar yi taxawaay ba ñu taxawee mooy taxawaayu bloqué lépp lu fa njiitu réew mi indi ñoom ñu jël ci euh, firnde li ñu defoon keroog di projet de loi bi président de la république yóbbu ngir ñu tas conseil économique social et environnemental ak haut conseil des collectivités territoriales bu dee farandoo mi la ñu amna ñeneen ci wet gi ñuy wax ne bu ko defee gënul ci réew mi Charles Émile Abdusis ci la bokk moo nekkoon directeur de la solde donte mi ngi bokk ci coalition Diomaye président waaye nee na Sénégal la jiital ba tax mu artu président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci tasu assemblée nationale ak ngaañte yi mu mun a jural Sénégal surtout ci wàllu koom ak ni Charles emile Abdou Ciss le la leen di dégtal ay kaddom mu faram-fàccee lolu mu artu tay président Bassirou Diomaye Diakhar Fay balay bobu ni ñu leen koy waxé sa suné ne leen vidéo bi té partagé ko ngir ñeneen mun ci jot bu ngeen abonné gul itam def leen ko légui légui bu leen xaar té bëss cloche de notification bi bu ko défé benn vidéo dootu leen connu kon ñu déglu Charles emile Abdou ancien directeur de la solde bokku tay ci coalition Diomaye président Charles Émile Abdoussis, gannaaw bu ñu la nuyoo yow yaa directeur euh, de la solde ngay artu ci euh, njeexital yi tas assemblée nationale jamono ji mën am euh, ci finance publique est-ce que mun nga ñu indil ay leeral ci loolu bon bon dama ne d'abord wàllu finance publique c'est important pouvoir bu ñëw mu am majorité boo xam ne da koy permettre mu gouverner ci assemblée donc euh, passe assemblée euh, yoon la parce que lolu njiitu réew mi nga xamné ne majorité bi ko fal daf ko wara fekk assemblée comme ça ni muy jiite réew mi mën yomb bu bëggé yenn loi yenn décret yi nga xamné ne day permettre mu daldi euh, réaliser li nga xamné moy ci projet maanaam projet de développement euh yi mëna mëna mëna a quoi ci yoon oui, dafa am risque risque mooy assemblée ak euh, fin décembre pour organiser fi élection il faut que nga en tout cas li nga xamné délai yi mi en tout cas dans di sas té délai yooyu dafa nek délai yo xamné que fay jafe ñu parce que bo Euh, président war na jël benn euh, décret décret boo xam ne ci quatre vingt deux jours quatre vingt dix jours lañ koy jël maanaam ginnaaw balaa élection bi di ubbi da ngay jël benn décret ne convoqué na corps électoral bi après it euh, nga may leen ñu def parenage ci un mois un mois lu tegal bu loolu weesoo campagne bi vingt et un jours lay duré. Euh, avant campagne bi il faut que ñu saytu parrainage pour xool yan des ñooy dem ak yan ñotul dem euh, ginaaw loolu yëpp li ci des xëy dalay bariwul yi mooy jour élection bi ak euh, proclamation bi mm. mais boo nattee loolu yëpp jéggi na trois mois te li ci des ci at mi bon mën naa ne trois mois peut-être ci la yem ak quelques jours mm. donc euh, ma ne woon xëy na xel yëpp nangu nañ ne dañu war a dañu war a tas assemblée ndaxte bon reflété wu li nga xam ne tey moom la Sénégal yi décidé le vingt quatre mars mais da ngay xool inconvénients yi maanaam bu ñu tasee assemblée te te amuñu assemblée nationale tey dina xaw a jafe nga daal di voté budget Sénégal Eh, bi ci des aussi war nañoo déglu ki nga xam ne tey mooy élimaan jawriñ yi Ousmane Sonko ci wàllu direct déclaration de politique général te loolu dafay baax ci jamono ji eh, ñeenteel bi mooy li ñuy wax loi de finances rectificative dañ ko war a def parce que budget bi ñuy accordé woon ñu ngi ko accordé woon gouvernement Macky Sall boobu vingt trente quatre ministères la tey ñu ngi ci vingt quatre ministères donc eh, ñi ñu ko accordé loon ak ñi bokkul donc dellu assemblée dafay doon yoon bu ko defee ñu mën a xoolaat li nga xam ne jot nañ ko euh, dépensé li ñu bëgg a def ci li def ci at mi daal di koy valider ci loi de finances rectificative euh, ñetteel bi dafa am budget yoo xam ne exécuté nañ ko pare te war nañ ko saytu avant ñiy xool budget bii di ñëw muy budget deux mille vingt trois année bi ñu weesu te loolu yëpp kan moo ko mën a xool kan lañu may compétence pour mu def ko mooy assemblée nationale moo tax ma ne waxtaan bi nga xam ne moo taxoon ñu jéggi jafe-jafe yi laloon élection deux mille vingt quatre bi waxtaan yooyu mun nañ ko lalaat député yi benn Bokk Yaakaar dañu war a vraiment euh, dindi motion de censure bi motion de censure bi amul benn njëriñ dafa mel ni fayontu politique la te jaru ko dal ndax fi mu nekk nii réew mi moo ñu ñor eh, soxla yaa ngi fi jafe-jafe yaa ngi fi te li koy faj mooy budget yi te budget budget ñëpp la eh, boo defee motion de censure yaa ngi tardal liggéey réew mi boo boo ko bañee voté it eh, yaa ngi andi jafe-jafe yow sax sa bopp yaakaar naa député bu bu bu voté wul budget kooku warul fay ko salaire am donc loolu yëpp daal euh, moo tax ma ne waxtaan bi moo gën parce que am na fu réew bi toll am na yoo xam ne jaratu ko fayantu bi amatul njëriñ. Mhm. peuple bi décidé na pare ne bennoo nekkatu fi président Macky Sall dem na ki fi nekk tey yàlla teg ko fi mooy Bassirou may jaxaat Faye donc nañ ko permetre mu gouverner li mu waree ni mu gën a rafetee bu ko defee ñu mën a euh, ci fin d'année bi wala début deux mille vingt cinq bi xool contexte favorable ñu dissoudre assemblée bi organiser élection normale ko loolu rek alors gouverné par ordonnance bi ñuy wax wala par décret loolu itam euh, gënul su de la déggee. lo euh fiñ koy mayé moy fi nga xamné assemblée mu ngi mu ngi euh, mu ngi exister te gouvernement déposé projet de loi ak retard ñu ne bu ko assemblée votewul ci 60 jours yi. Euh, dootu ko dootu ko mën a defati léegi dañuy may gouvernement mu jël ay décret pour joxaat ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon euh, ñoo nekkoon ci budget bi maanaam responsable service yi ak service yi ñu joxaat leen seeni dotation seeni budget de fonctionnement ak yooyu mais loolu cas bi nga xam ne la assemblée am na mais bu assemblée amul charte réew mi yoon mayul njiiti réew mi muy jël ay décret di exécuter budget te fekk amul autorisation ndax loolu ñoo naan principe séparation des pouvoirs ku ca nekk dafa am lu la charte réew mi may loolu la bëggoon euh, peut-être euh, développé. Hmm. kon mu doonoon décryptage bés bi tey ci FTN Média ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd beeg ñun di leen dig daje très bientôt jëmmi jamono du yàgg dara ñu indi leen yeneen leeral ci beneen sujet bu ngeen amee itam boo xam ni bëgg ngeen ñu indi ci ay leeral def ci décryptage bu mucc ayib wax leen ñu ko ci commentaires yi ñu ngi leen di ñaanal kenn la jàmm.